ok yéen a wax ma ñëw ci maanaam daka ngay def ba économiser sa xaalis xoolal dama bëgg nga seetaan vidéo bi bu baax a baax ndax nga jële ci njëriñ façon video yi am na solo mbi vidéo mbëggee yi am na solo lool mais vidéo yi tamit dafay defar sa àdduna moo tax dama bëgg ngeen koy like bu baax a baax boo ko defee may sawar di ci ñëw ci ki may njëkkee mooy ki nga xam ne dafay liggéey ñu koy fay par weer kooku noonu li mu war a def mooy weer bi da ko war a wutal programme gis nga àdduna organisation da cee baax da nga war di organiser li ngay def ci weer bi li ngay financé ci weer bi da ngay xool ñaata ngay dépassé woo ci famille bi nga rëdd teg ci lu munta ñàkk nag nga xool ñaata ngay dépassé woo ci sa bopp nga rëdd teg ci lu munta ñàkk nag su ma defee loolu lépp li mooy des ci xaalis ma jël loolu daal rëdd ginnaaw bi nga rëddee sa programme ba teg weer bi de ñu fay la exemple cent mille francs maanaam weer bi yow cent mille francs lañ lay fay exemple nga jël cent mille francs yii nii ci nga programme woon génn ci li ngay xam ne moom ngay jàppee ci famille bi exemple vingt cinq mille laay jàppee ci famille bi ma génn vingt cinq mille vingt cinq mille yi teg naa après 75000 moo may desee ci xaalis 75000 yooyu noonu dama ciy génne 45000 ngir lan ngir sama bopp maanaam bu fekkee damay fay luyaas ma fay ci luyaas yi ak li may lekk ak li may naan bu fekkee nekkuma sama kër 45000 yi génne naa ko teg mu jëm ci loolu noonu après li may dese mooy 30000 30000 yooyu duma ko lekk duma ko laal dama ko jël denc ko ci kees gi wala ma denc ko banque su ma ko dencee banque di ko def ba mat 12 mois. 12 mois yi yaa ngi am mille francs yaa ngi imaginer boo dee def chaque at nga denc mille ñetti at boo ko amee da ngay am 1 million 80 gis nga loolu noonu boo ko continuer fekk 5 ans non di nga mën a taxawal sa place bopp di nga mën a taxawal sa liggéeyu bopp. bu fekkee da nga nekk sa kër fayoo luyaas fayoo ndox jëndoo lekk ak naan. su boba moy ginnaw bi nga génnee 25000 yi ngir japp ci kër gi da ngay déssé 75000 75000 yoyu normalement 20000 mille nga ci wara a 20000 francs kase nga ci wara a ngir mu don sa l'argent de poche cinquante cinq mille nga xamné mo lay déssé dang koy jël nga denc ko ci caisse gi wala nga denc ko banque chaque weer 55000 ba mat 12 mois ci at mi yaa am 660000 yaa ngi imaginer chaque at nga am six cent soixante mille boo ko defee ba mu mat ñetti at da ngay am un million neuf cent quatre-vingt mille presque day mat deux millions gis nga loolu noonu boo ko defee ba mu mat juróomi at non kenn la mën a teewati incha allah danga mën a taxawal sa place bopp. bu ne loolu noonu dafa yàgg parce que da nga gis nit koo xam ne moo ngi liggéey ñaar fukki at mënut a dajale li nga xam ne mooy cinq cent mille francs yu mat li ko waral mooy dalul denc lu ñëw day lekk. te loolu boo dee ko def fii ba téeméeri at wallahi doo dajale un million sax yu mat su ngeen bëggee ma ñëw ci businessman yi ak ñi nga xam ne dañoo yor seen liggéeyu bopp <laughs> da ngeen ma naan wii ci commentaire yi wii ci commentaire yi bu ko defee ma ñëw ci wii rek ngeen may bindal bu ko defee ma xam ne lii nii intéressé na leen wallahi sama domaine du mbëggeel kese <laughs> xanaa da di sénégalais yi dañoo bëgg mbëggeel ndax damay seetlu su ma dugalee vidéo mbëggeel dafay bëri ay like de trop de trop macha allah léegi dama bëgg façon vidéo yi tamit muy bëri ay like de trop bu ko defee nit ñi di ci mën a jariñu bu baax a baax